asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, dañu dir siwaatoon rek ndax Sénégal képp na ñor lépp loo xam ne yëngu na fii day intéresser toutes les populations ba tax am na loo xam ne ñu ngi yëngatu ñu ngi koy togg ci élection présidentielle yi passé lu ko sëriñ si toggoon ñor na xomm wax koo yàq li nga xam ne moo am ba des pour mu leer ci yéen kilifay diine yi cette mafia mara maraboutique ñu ngi waxtaan guddi di waxtaan bëccëg di déeyoo ak di di sante ana luñ bëgg Idriss Seck lañ bëgg fay borom ndax Idi biñ ko nee bàyyil daa ba cette fois-ci dañoo bëgg a jël réew mi jox ko ko moo Karim Wade lañ négocier pour ñu mën a yor réew mi ndax seen baay Abdoulaye Wade loolu nga xam ne waxoon na ko ne cinquante ans de règne jariñ sëriñ si ak li leen defal nangul nañ ko ko li fi nekk da koy wax da ngeen koy wax réew mi kët noo ko moom bu jéngee jëm ci boor ña féete saaku yële dañu war a daw dis ci saaku yi pour jooyanti yen bi sëriñ si nag moomu ñunu moomu ñunu te bu ngeen nangoo ñu moom leen yéen réew mi moomuñu ko ba tax na lii nga xam ne moo fi xew nar a xew bu leen ko nangu Idriss Seck dama ne suñuy maam suñuy maam ba di nekk njaarim ci di ko gasali pax ak di dem ca tool yi di xëye ka wàcc ca lal der yi booba maam maami Idrissa Seck mu ngi yor am ndëndëm topp xaxar yi mu ngi yor am ndëndam topp sabar yi mi ngi yor am ndëndëm wër di màjjal ak a taxawaalu kon nun ñii suñu maam nekkoon ak sëñ tubaa ca njaarim defe naa kenn gënu ñoo sell kenn gënu ñoo jekk ci yor réew mi te nag daa fulla joo xam ne ci sëñ Tuubaa lañ koy wéer am sunu lànk te dañuy lànk dañuy lànk Idrissa Seck daal man mi Ousmane Dramé du ma nangu mu yilif ma waaw ah, amul lu ma gën amul lu ma rawe amul fu mu dem te demuma fa te it danaa leen xamal leen il n'est pas plus rusé que moi xamut dara te it jubut Karim Wade warta mën a yor réew mi am réew boo fa amul lijaay waroo koo yor dama ne ab dëkk boo fa amul lijaay war doon borom dëkk ba Karim Wade xamuñu marocain la xamuñu français la xamuñu sénégalais la fii de nangu fee toog bi ni xeex kenn mësu ko fee gisat mu yoru yat ne day xeex kon am leen fulla sëriñ si bu ni la ëpp fulla ñoom moomuñu réew mi bay fala ko yow dëkk bi nga dëkk nee nga fi kenn wote wala nga wote leen kii la nga sàkkoon kenn defu ko ndax dana la faa gañe yoon mayu la nga jóg naan fal leen chef de quartier bii kenn waxante dëgg réew mi nag dama ci wax man dama fi ci am wàll waaw am fi ndey am fi bàyyi ñu juddoo fi yàlla wàcce ma fi ma war fee nekk nag war koo jaamu war koo suturloo dama dul nangu dama du nangu kenn di ma gàlli tànk te surtout koo xam ne man ak yow noo bokk lenn lu ñu yàlla sant lii du mbiri sëriñ mbiru citoyenneté la lii dama ne mbiru citoyen la kii du affaire marabu ah Idrissa Seck mënumaa yilif man dama ne Idi demal ànd ak Mbaye Dièye nga jàppale ko ci tëgg mi defe naa moo tane nga dikk lii nga xam ne dégg nga am say maam ñemewuñ koo laaj nga bu ko foqor ci sunuy loxo déedéet jaabante gi bari na tey murit nga suba nga doon tijaan boo boole nga doon am majus boole nga doon franc-maçon pour lan pour lan sëriñ si lay dalal sax baati néewul ci ñoom mukk dama sëriñ si lay dalal baati ci ñoom ndax ku ne jàkk xool sa xar kanam war a xam yaay kan idi man mënoo maa jiite te du ma nangu ko jiite ma te bu soobee yàlla danaa ci xar sama tànk tuwuy ba waxuma la man waaye du jiite ab baa doole ci dëkk bi waaye làppatoo rek fi dajaloo nag bañ ñu dara sëñ bi nee nee ndigal ndigal xewi na ndigal ba muy am mag ñi xamuñu dara waaye jamono yi nga xam ne ak léegi la science technologique ak xam-xam yi nga gën de cette culture de l'information dama ne di fi diggan di sax du ay teggin waaw boroom jabar yori doom yorum njaboot yor ndey ak bàyyi bokk ci ab gox gox goxaan dama ne toog di déglu keneen muy jóg kàddu jóge fenn nit waru koo def nit waru koo def waaw ponkal mu toog di déglu ndigal ponkal mu démissionné la ndax nit dafa war a xalaat te kat yàlla moo ne borom xel yi laay waxal ko mutul xel waxuma ak yow sëñ Tuubaa borom xel yi lay waxal waxul ki dof ay nit lay waxal kon ñu doon ay dof ba Idriss Seck mii ah, nga xam ne géew bu ne maam toj na ko sabar gu ne maam fekki na ca xaxar gu ne maam xaxar na ko dama ne di mënuma jiite waaw yaayam ku ne xam na ko ku baax la woon nag soxna su baax waaye laabaan la daan def ak lan xaxar laabaan ak xaxar kooku sama ndey seeni bu faal bokk ci paalin nga ca kajoor ndeyam sant jóoba ki bokkam man dama dul nangu iddi teg may tànk maa lànk rax ca doon doon sëtu Mouhamadou Lamine Dramé bu fekkee ne ab juddoo tax ngeen di wax dama ne iddi duma tegi tànk te sëriñ bu ma ne wooteel lami wooteeleel kii danga nga dégg xam nga sa ndey te mosoo koo dégg lànk leen iddi wër leen a mën a jiite waaw wër leen a mën a jiite na foor am ndëndëm dem tëggi moo gën waaye nous sommes dans une société une société humaine nit day xalaat indi ko muy argument nga indi ko ci pénc mi keneen xalaat ñeneen génne seeni argument ñu nocc ca téeñ boo xam ne daañ ci mën a téeñu yenn ci dëkk bi noon dañ koy doxale waaye toog sa client li xew ci àdduna xamoo ko say âge ci boppam li ko manqué téeméeri at bariwul nga taxaw naan def leen lii aw leen fii gaar leen fii xale boo topp bu ne jaar ci doo nit dem leen ngeen jàngi xale yi te gëstu science en technologie dem leen ngeen jàngi dugg ci laboratoire yi dem leen ngeen gëstu ji la science universelle xam-xam la boo xam ne ku gëstu xam te yi ngeen bàyyi ko am fulla am fayda ci seen bopp Idrissa Seck Idrissa Seck bu bëggee lu mu na wut batterie wuti ndëndam ak sabaram ak xiinam ak tamaam buy tëgg duma ko ne tegal galen bi du ma ko wax mukk ci àdduna waaye lii mu bokk moom te gënu ma day gënu mu bàyyi ah jël alal réew di ko neexal yenn sëriñ si ah, ak sëriñ si yaakaar ne faible nga feebal boo xam ne loo bu la ko laaj nga jox la ko ñu ñu xataraay bëgg laa fal ba ma fi idi loolu duma ko nangu idi buñ jàkkaarloon bët ak bët nga ñu togg saabu danga xam ne ki nga jàkkaarlool ponkal nga waaw yii nag dafi doxe xale yi ko du nangu sa ab sëriñ dalay sasa njariñ te sëriñ si amu ci kenn koo xam ne rek masala jàngal aw saar da nga cay jébbulu ngir sa baay wala nga jébbulu ci sa maam wala nga jébbulu ngir falaa bokk loolu képp kan boo ko def dëgg wax dëgg parce que réew mi dafa ami xale réew mi dafa am ay jigéen réew mi dafa am ak jur ak rabi àll réew mi dafa am territoire yoo xam ne non seulement moomuñu ko waaye ñun ñëpp ñoo ko bokk ba tax na ku góorewul ku góorewul rek danga nga dee dem sawara muy wàlliyu muy imam mu dib sëriñ yàlla li ma sant moom la sant kull ku dib sénégalais kull ku dib jullit ba tax na bun góor góorluwul bun góorgóorlul ak sant lu mën a sant daanu dukkat ba dugg sawara te ñëw fi bu sun bopp waaw Idriss jiite te am naa yaakaar ne ñu bëree bëri ne mel lan mel bu dee dañ ko bëgg wér ci di woy sans mam di ci laa ko xool moo tax ma tonte leen noonu waaw bu deen diw ak sans mam diw ak sans ki gañee réew mi képp amul gratu di ko yéene yéene di yéene naan diw a yoon mayu ko ndax fi mu toll ak aw suuxam man fas yéene ma mu jiite ma te du ma jiite yéen xale yi nag bu ngeen déglu waxi kilifa yii di woy seen bopp kilifa te ñoo seen kilifay famille yii buy leen moyul ñun ñëpp daañu bokk torox te torox ngeen ba pare yéen a nga Brésil fu ne yéen a nga fay taxawaal fi ngeen dëkk juddoo fa mu leen fay takk sayu mat fi ngeen dëkk juddoo fa màgg fa mun leen fa wattu mbuum bu ngeen reere mbuum bu ngeen reere mun leen ko bu leen di force yi Idriss Seck ngeen di ko jël dama ne duggee nit Karim Wade amul li ci dëkk bi wërta mën a doon borom dëkk bi ah, bu seenu xel gàttee nag ah, ba ngeen nangu lii leen sëriñ si dañoo complot ak gouvernement bi complot ak français yi parce que complot bi yàgg na depuis 1896 complot baa ngi am complot bu mujj bi ci geer bu njëkk bi la 14 18 xam na ni mu demee kenn ku ci nekk lettre ba nga bind français yi xam nañ ko xam nañ fu mu nekk te jàng nañ ko kan bokk honnête ànd defar doon ay gor te mooy Idriss Seck mi di nitu dara te fas yéene maa jiite man peace and